cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall mi ngi gane àdduna ci atum 1856 ci dëkk bu ñuy wax Touré Atoumane nekkit ci tund wii di njébbi faal dëkk bii di ture atumaan maamam ju ñuy wax aatumaan faal mooy ku ko sañcoon ture atumaan gi mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax ture ci suuf si di kayoor kii di maamam itam bokkoon ci njaboot gii di njabootug dammel mënoon na yilif lii di kayoor kon Cheikh Ibrahima Fall sëtu buur la waajuram wu jigéen soxna Seynabu Njaay lañ koy woowe waajuram wu góor sëriñ Ahmadou roq Fall la tudd Cheikh Ibrahima Fall am nañu ñu mu bokkal kii di soxna bu Njaay ñu ràññee ci ñaari doomu aadama ak moom muy ñett ku ñuy wax maam saaliwu faal moo sanc dëkk bii di daaru xafoor ñoo bokk kii di soxna bu Njaay ak sëriñ Ahmadu Roqaya Faal am na kaneen ku jigéen ku mu bokkal soxna bu Njaay te bokkuñu sëriñ Ahmadu Roqaya Faal mi ñu koy wax soxna Assu Jóob Njoobeen ginnaaw bu soxna bu Njaay liggéeyale kii di sëriñ Ahmadu Roqaya Faal ba noppi dafa bàyyi ko woon ñëwaat nag ci Njoobeenu Belal wala ci dëkk bu ñuy wax Belal Jóob ci kër sëriñ Abdu

am fa doom ju ñuy wax soxna Astou Diop kon Cheikh Ibrahima Fall ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett soxna Astou Diop mi doomu soxna Seynabou Njaay la sëriñ Daaru Asan Njaay lañ ko joxoon mu am ci ku ñuy wax sëriñ Moor Astou Diop Njaay sëriñ Moor Astou Diop Njaay mi moo jur soxna Bintu Njaay Baay Fall mi ñu jox sëriñ Moustapha Fall Mbar bu sëriñ Moodu Aminata Fall Cheikh Ibrahima Fall bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram di sëriñ Ahmadou Roqeya Fall mooy ki ko dalal lii bi nag yóbbu nañ ko kër nijaayam di njare njare googu ci kër nijaayam la eggalee nag lii di njàngum alxuraanam ak lii di njàngum xam-xamam ba gi yu fa lool ci wàllu njàngum alxuraan ak lii di xam-xam mu jóge njare kër nijaayam daa di delsiwaat nag fi mu cosaanoo di njébbi nekk nag ci ginnaaw waajuram wi di sëriñ Ahmadu Roqeya Faal di ko liggéeyal ci diggante boobu nag la ko ko baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim feeñu muy wër nag ko baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim kon nag ma wax leen maam cheikh ibrahima fall lu ko indi nag ci ëttub ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ginnaaw bu mu jàngee alxuraan ci njare kër nijaayam ba mokkal lii di alxuraan delsiwaat nag ci ëttub waajuram di fi mu cosaanoo di njébbi faal ci kër waajuram sëriñ axmadu roqaya faal ci diggante boobu nag la ko seexul xaddiim feeñu waaye nag muy wër lii di leer gi xamul fu mu nekk cheikh ibrahima fall fu mu yaakaar ni nit ku baax ma nga fa dem na fa di xool ba xam kii mooy seexul xaddiim waa wala déet noonu nag ni la ko toppoo ba mu jigi mu dem ci dëkk bu ñuy wax ba Ndaqaar ku ñuy wax Ahmadu Bamba Sill ma fa woon bu Tayba Ndaqaar Ahmadu Bamba Sill mii nag waajuram mooy sëriñ Ahmadu Ndumbe Maar Sill moo kii di Mamor Anta Sali mi waajuru Xaadim Rasuul ñoo jàngandoo ci sëriñ Ahmadu Bamba Sàll bu Saalum bi ñu jàngee ba noppi keroog bi leen sëriñ Ahmadu Bamba Sàll di yeewi wala di leen ñaanal ñu dem da leen dénkoon ne moom de macha allah xam na ne nitug yàlla la waaye nag nit nekkul kuy siiw ci àdduna waaye nag ñoom ñaar ñi kenn ku ne da nga am doom joo xam ne nii daal dana siiw lool bu sañoon nag kenn ku ne daal nga jël sa kenn ci sa njaboot nga duppeeku ko noonee mu ko waxe woon kii di Mamor Anta Sali ni la ko Mamor Anta Sali defee ndax nii la jële kii di Xaadim Rasuul tudde ko Ahmadu Bamba Sàll moomu kii di sëriñ Ahmadu Ndumbe Maar Sill noonu la jële kii di Ahmadu Bamba Sill moomu duppee ko ko kon ñaari Ahmadu Bamba yi ñoo bokk Ibrahima Fall nag bi muy wër Ahmadou Bamba Mbàkke ci Ahmadou Bamba Sylla moomu la njëkke ginnaaw ba mu fa demee nag ci dëkk boobu di Taïba Ndakaar ndax foofu la nekkoon def na fa nag ab diir di wër ki nga xam ne ni moom mooy Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim tegoon ko ko waaye daal xam na ne daal wuute naag lool leer gi nga xam ne nii moom moo ko feeñu ndax saa su ne leer gi mi ngi jolli te jolleewul ci kër Ahmadou Bamba Sylla moomu mujj gi nag Cheikh Ibrahima Fall bana fa kii di Ahmadou Bamba Sylla moomu di wër ku baax ki Sëriñ Tuubaa seexul xaddim dem na nag ci dëkk bu ñuy wax sànjara sànjara mi ngi ci wetu dëkk bii di bàmbay am na dëkk bu fa nekk bu ñuy wax njoos njoos googu ku ñuy wax sëriñ ma sàmba Faal ma nga fa ci tooli sëriñ Masamba Faal yooyu Cheikh Ibrahima Faal am na fa ab diir bu takkoo takku ndax ginnaaw gi jaaxle na te xamul fan lay wëra leer gi nga xam ne nii daal leer gaa ngi koy feeñu te xamul fan la nekk ndax fa mu yaakaar dem na fa ginnaaw bi nag jógewaat na ci dëkk boobu di njoos di wëriwaat ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim mi ngi woon ci dëkk bu sell bi di Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor googu nag xëy nañ suba kii di sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yónni ku ñuy wax Cheikh Adama Guèye ci sëriñ Ahmadou Bamba Sylla moom ak kaneen ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Touré yónni ku ci beneen dëkk boo xam ne ni mi ngi ci ginnaaw dëkk boobu di Tayba Ndakaar ñoom ñaar nag ñu àndante ca yoon wa ba ci dëkk bii di Tayba Ndakaar ñoom ñaar biñ jëm see ci dëkk bii di Tayba Ndakaar booba maam Cheikh Ibrahima Fall jóge na njoos jëm si ci dëkk bu ñuy wax sànjara sànjara mi ngi ci diggante ba Ndaqaar ak dëkk bii di Njoos ak Daqaar mang fa ci Daqaar googu nag fi lañ fekk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina bisub keroog sànjara googu nag Cheikh Ibrahima Fall gis na fa kii di Cheikh aadama Guèye ndax keroog bi Cheikh aadama Guèye di dem Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim am mbubbam la ko solal ngir Cheikh Rafal man koo gis keroog bi Cheikh Rafal ne jàkk kii di Cheikh aadama Guèye la jaayanteeg moom di ak leer doon wër seen naa ko ci sa jëmm ji kon yow laa doon seet sëriñ Adama Gueye di ko xamal ne du moom waaye am na ku ñuy wax Ahmadou Bamba moo ko yónni mu ngi ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor ci la ko Cheikh Ibrahima Fall ne nañ dem nga wan ma ko Cheikh Adama Gueye di ko xamal ne dañ koo yónni waaye na ko xaar foofu su dëppee dana ànd ak moom ba yóbbu ko ci dëkk bii di Mbàkke Kajoor bisub keroog am na ñu ne fukki fan ak juróom benn la ci weer wii di weeru koor am weer di weeru koor waaye daal li wér te wér mooy kii di maam cheikh ibrahima faal ak sëriñ tuuba seexul xaddim gise wuñ seen gise bu njëkk ci ñaar fukki fan ci weeru koor lu ko jiitu moom gisee nañ bis bii di ñeent fan ci weeru koor xalifaam bii di sëriñ cheikh jëmbu faal mi ngi koy màggal ci ndigalul sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke ndax kat bis boobu lañ jortu ne moom la cheikh ibrahima faal njëkk a gisee ku baax ki xadimu rasool waaye ci ñaar fukki fan yi moom ci la ko seexul xaddim leen lii di njëbbalam moo tax sax maam cheikh mi ngi koy nettali kii du cheikh Moussa Ka ci wolofal bi ko cheikh Moussa Ka defal cheikh Moussa Ka ma ngay wax ne maam Cheikh Ibrahima faal moo ne ko suñ boroom mi ko bind moo ne ko Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe cheikh Moussa Ka ma ngay gën a leeral ne Cheikh Ibrahima Fall moo ne ko ñaar fukki fan la ci weer wi di weeru koor ci la ko xaadim rasool di dooga nangul lii di ak njébbalam ci dëkk bu sell boobu di mbàkke kajoor waaye mook seexul xaddim nekk nañ mbàkke kajoor lu jiitu ay ci yow seexul xaddiim naan ko du fi ba ca ñaar fukki fan ya xaadim doog ne ko ale yéwén man la kon foofu ci tey ba ndaqaar kii di maam cheikh ibrahima faal ànd na fa kii di cheikh aadama géey ak sëriñ maxtaar ture ñu jóge tey ba ndaqaar ñibbisi waat ci dëkk bu sell bii di mbàkke kajoor keroog bi ñu demee ba jub lii di mbàkke kajoor nag cheikh ibrahima faal leer mu doon gis ci cheikh aadama géey ba toppoon ci gis na leer gu ko gën a kawewaat ci kanamu cheikh di mbàkke kajoor mu ne cheikh aadama géey leer gi ma doon wër te gisoon ko ci sa jëmm jiide mujj naa ko séen ci sama kanam daa di waaxu nag jiitu kii di cheikh aadama géey ci dëkk boobu di mbàkke kajoor waaye bi mu eggee taxul nag mu gis ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bi cheikh aadama géey egsee nag nuyoon teg ku baax ki seexul xaddiim wax ko la ko seexul xaddiim yónni woon ci ahmadu bamba sill moo ko itim li ko ahmadu bamba sill tontu ci xaadimu rasuul seexul xaddiim laaj na ko ba xam àndut ak kii di gan waa ma ngi koy xamal ne ànd naag benn waaye kay bu koy seet seexul xadim nee na ko na egsi ginnaaw bu ko cheikh aadama géey waxee ne ku baax ki xaadim rasool nee na nga egsi ba ñoom ñaar ñu gisee nag keroog Cheikh Ibrahima Fall xaadim rasool laaj na ko naka nga tudd mu ne ko yab sa xànc faal laa tudd seexul xadim di ko wax ne ibrahima de moo gën lii di yab sa xànc kon tur wi di ibrahima bi su keroog la ko ko seexul xadim tudde ginnaaw bi itam seexul xadim tànk maam Cheikh Ibrahima Fall di ko xamal ni damaa toppug leer ba mu sox ci sa jëmm ji te leer googu nag laa doon wër ma fas yéenee nag comme gis naa sa jëmm ji di jaayanteeg yow Seexul Xaddiim di tontu keroog maam Cheikh Ibrahima Fall di ko xamal ni ak leer moom sowe wut ci sama jëmm gii Cheikh Ibrahima Fall keroog ma ngay wax Xaadim Rasul di ko xamal ni yow de taxoo maa jóg waaye leer gi ma topp ba mu sooye ci sa jëmm ji bis boo ma fu mu fenke rek ma dem ba la wax kii di maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko lii di leer gi daal soowi wu fi booba na xaadim rasool mi ngi xool ba xam ka nga xam ne nii moom la doon sàkku ci suñ boroom mu jox ko ko kooka la waaw wala déet waaye mujj gi nag xam na ne kii di Cheikh Ibrahima Fall la keroog ñoom ñaar bi ñu njëkkee gisee laa la wax am na ñu ne ñeenti fan la ci weer wii di weeru koor waaye am na ñeneen ñu ne fukki fan ak juróom benn la ci weer wii di weeru koor en tout cas daal li wér te wér mooy seexul xaddim ak kii di maam Cheikh Ibrahima Fall toog nañ Mbàkke Kajoor ay fan alxuraan maam Cheikh Ibrahima Fall làmp baabul diina di ko wax ni leer gi ma topp ba mu dugg ci sa biir kër gi bis boo ma wanee fu mu génne ma bala fi dem seexul xaddiim di ko wax ne ak leer daal toppoo ko ba mu dugg fi kon nag leer gi du fi ci loolu daal ñoom ñaar ñu nekkoon mat na ci diiru ñeenti fan wala ci diiru fukki fan ak juróom benn tombeeg nag muy ñaar fukki fan ca weeru koor wa ci la ko seexul xaddiim ne ala yéwén nag li nga doon wër mi ngi gi loo fiy sàkku te amoo ko ci yow la maam Cheikh Ibrahima Fall di tontu xaadim rasul di ko wax ni lu mu fi wut te aw ko itam yaa ma ko yéenewul ca pas-pas boobee daal ak ngor googee daal lañ mujj jaayante ñoom ñaar Cheikh Ibrahima Fall nag di ñeen fukkeelu taalibeeb xaadim rasul mu wéy nag nekk Mbàkke Kajoor ginnaaw bu mu jaayante ku baax ki xaadim rasul ba noppi bokk nag ci ñeen fukkeelu taalibe seexul xaadim toog na fa ab diir foofu ci Mbàkke Kajoor bàyyi koo fa dellusiwaat nag ci dëkk bu sell bii di Mbàkke Bawal ngir sànc si dëkk bii di daaru salaam cheikh ibrahima fall ànd naag moom lii di dëkk bii di daaru salaam cheikh ibrahima fall bokk na ci ñi ko gor dëkk bu sell bii di tuubaa itam maam cheikh ibrahima fall bokk na ci ñi ko gor cheikh ibrahima fall di liggéey di jox xaadimu rasuul nangul ko def ko ab sëriñ ba ci atum 1891 at moomu la cheikh mouhamadou lemin baara mbàkke moom sëriñ tuubaa seexul xaddiim gane lii di àdduna ci fukki fan yaak juróom ñaar ci weer wii di weeru gàmmu di ngërëmam bisub fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmm ci atum 1891 moo dëppook bisub talaata fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmmu ci atum 1309 ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmm ci atum 1309 ci gàddaay gi dëppook muy mardi 20 octobre 1891 mardi 20 octobre 1891 maam Cheikh Ibrahima Fall jot ngërëmam ci ku baax ki xaadim rasool ci dëkk bu sell bii di Touba mu delluwaat nag ci dëkk

dëkkub cosaanam ñu teg ci lu tolloog ñetti at wala lu tolloog ñeenti at muy atum 1895 dépp samedi fukki fan ci mois de ut ci atum 1895 di gaawu fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi di safar ci atum 1313 ci gàddaay gi tubaab bi woolu kii di cheikhul xadim ci dëkk bii di ndar géej booba cheikh ibrahima fall mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax tugg tugg mi ci wetu dëkk bu ñuy wax ndaay ndaay mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax gànjool ci suuf si di ndar géej foofu la maam cheikh ibrahima kon bi sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci géej gi fa la nekkoon itam ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim jógee ci géej gi bi mu nekkee ci dëkk boobu di tugg nag am na taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu doon wax sëriñ mbayloo sëriñ mbayloo maam Cheikh Ibrahima Fall joxoon na ko ndigal ngir mu dem Cees sanc fa dëkk bu ñuy wax Madina Cees Madina Cees googu itam Cheikh Ibrahima Fall daana fa dem kon bi sëriñ Touba seexul xaddim di ñibbisi ci le 11 novembre 1902 kii di maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ci diggante bii di tugg nekk ci wetu ndaay ci ji gànjool ci ndar géej ak fii mu sanc loo woon taalibeem bii di sëriñ mbayloo di madina cees ci atu 1897 sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi ci dëkk boobu di gabon maam cheikh ibrahima fall wutoon na ay addiya yónni woon taalibeem bu ñuy wax sëriñ abdoulaye nduur sëriñ abdoulaye nduur sax keroog bi muy dem gabon di yóbbu addiya yi ci la yóbbaale sax kaamilub seex moodu mustapha mbàkke ngir di ko wax ne sa doom ji nga fi bàyyi woon kaamila ma ngi nii bi ku baax ki ñibbisee ci atum def na nag comme ni ko seex sépp defee ñëw ziyaare si ku baax ki xaadim rasuul ginnaaw bi nag la delluwaat foofu mu nekkoon ginnaaw gi itim daana ñëw daaru marnaan gii seexul xaddim nekkoon di gane kii di maam Cerno Ibrahima Faati foofu sax la ko seexul xaddim joxaati woon ndigal mook maam Cheikh Anta Mbàkke ngir ñu dem jëndal ko lii di ay lal lu tolloo fukki lal ak ñaar keroog biñ ko jëndee ndar géej ba di ko indi la leen agent secret bii di Demba Ngari gis ñëw dem ci mbaaxaan secret wu di ko wax ne kii di seexul xaddiim daal gis naa mu sëflu lii di ay ngànnaay xam naa ne jihaad lay waajaat kon lal yooyee Cheikh Ibrahima Fall jëndoon ak kii di maam Cheikh Anta Mbàkke ca coow loolee nag ci la coow lu judduwaat ba yóbbuwaat kii di seexul xaddiim ci beneen résidence surveillée ci dëkk bii di gànnaar jaarale ko nag ci kii di mbaaxaan ak pël bii di dem Demba Ngari seexul xaddiim dem gànnaar ci atu 1903 ba 1907 gànnaar googu Cheikh Ibrahima faal dem na fa lu ñaari yoon jàpp ñetti yoon ci dëkk boobu di gànnaar ginnaaw bu fa xaadim rasul nekkee ci résidence surveillée wala laata cheikh ibrahima fall di dem gànnaar lii di ay yónneen sax daana ko def ndax am na benn bis mu yónni taalibeem bu ñuy wax sëriñ asan caam ci gànnaar googu ab junni la ko joxoon lii di addiya tombeeg na sëriñ ma siise ndongo moom itam bayoon ci dëkk bii di xàbbaan nawetub keroog ab dërëm la ca am keroog bi sëriñ ma siise ndongo mi di indi addiyab dërëmam bi tombeeg Caam mi àdduyee junni bi keroog seexul xaddim woote woon na ci gànnaar xaadim rasool mi ngi wax ni ki joxeeb dërëm ak ki joxeeb junni ñoo yem ca buur yàlla ndax kan ñoom ñaar ñépp la buur bi tabaaraka wa taala di fay ndax yéene moo ko jëf ñoo tolloo ak pay laata gànnaar googu sax seexul xaddim jaar na ci dëkk bi di dagana ndax xam ngeen ne yoon woowu sëriñ tubaa seexul xaddim doon demee gànnaar ginnaaw bu mu jógee daaru marnaan jaar na ci ñuy wax mbàkke jaar na ci dëkk bu ñuy wax saaw ginnaaw saaw jaar na ci dëkk bu ñuy wax ndilliki ndilliki foofu sax la giseeg cheikh Moussa Ka ginnaaw bu mu ko fekkee ci jàkka ji wooloo ko kii di waajuru cheikh Moussa Ka ginnaaw bi nag la fa jógee dem ci dëkk bu ñuy wax kànka ginnaaw kànka nag la dem bayti ginnaaw bayti nag la fa jóge ñëwaat ci dëkk bii di ngaabu ginnaaw ngaabu la jaar dala ginnaaw dala ture ginnaaw ture ndula ginnaaw ndula nag la fanaani njaareem ginnaaw bu fanaanee njaareem bët ñuy wax tuun maam cheikh anta mbàkke sax tabax na fa kër ñu koy wax tuubaa tuun ginnaaw yendoo foofu nag la dem fanaani ci dëkk bii di tiwaawoon kër sëriñ ma rubba géey la fa fanaan foofu ci tiwaawoon ginnaaw tiwaawoon la xëy dugge fa saxaar nag dem ci dëkk bu ñuy wax kel ginnaaw kel googu nag fa la yendu gonte fa dem ci dëkk bii di ndar géej ginnaaw ndar géej nag am na fa ay fan ndar géej googu nag la jëlewaat lii di gaal gu ko yóbbu ci dëkk bii di dagana ginnaaw dagana nag la dem gànnaar kon lii mooy yoon wi seexul xaddiim jaar jóge ci ngan gim amoon fii ci daaru marnaan ginnaaw bi nag la ko dem ba ngari tuumaal ci ay lal yum jënduloo woon kii di maam cheikh ibrahima faal ak kii di maam cheikh anta mbàkke dem ba ngari dem ci kam doon secret wu di mbaaxaan di ko xamal ne kii di xadim rasool gis naa ko mu sëf ay ngànnaay kon ci coow loolu la demee gànnaar bi muy dem gànnaar jaar na ci dëkk bii di dagana bisub keroog bi mu eggee ci dëkk bii di dagana mi ngi wàcc waalo foofu la seexul xaddiim wàccoon foofa itam kii di maam cheikh ibrahima faal yabaloon na fa ñeenti taalibeem wala juróomi taalibeem ngir ñu nekk fa ci ndigalul xaadim rasool ñu ràññe woon ci ku ñuy wax sëriñ momar géey sëriñ aliyun géey sëriñ moodu géey lambar na sëriñ ibrahima baasin ak ku ñuy wax sëriñ mustapha kan ginnaaw bi nag seexul xaddiim jóge na dagana dem ci dëkk bii di gànnaar gànnaar googu itam ginnaaw bu fa maam cheikh ibrahima faal yónnee asan caam ci àdd yëpp moom maam ni Ibrahima Faati la fa wooloo woon ginnaaw yoon woowu maam Cheikh Ibrahima Fall àndoon na kii di maam Cerno Ibrahima Faati ci yoon wu leen fa Xaadim Rasuul woowoon demaan na fa waneen yoon woo xam ne nii tim keroog bi muy dem dafa tombe woon ak Cheikh Sidiyal Moxtaar bu gànnaar soxla woon lii di ab junni junni ba wër nañ ko gànnaar ba gànnaar daj waaye amul kenn ku mën a génne junni jox ko Cheikh Sidiyal Moxtaar mii ginnaaw bi nag la Xaadim Rasuul bindoon leetre ñetti seexam yi muy sëriñ Ibrahima Saar Njaañ Cheikh cheikh ibrahima fall lamp ak kii di cheikh ahmadu ndumbe mbàkke di leen xamal ni nañ ko wutal kenn ku ne ab junni te ginnaaw buñ ko wutalee junni ba noppi nag bu fekkee na ñoom ñett mën nañoo ñëw ca yoon wa xayrun bu fekkee ne mënuñoo ñëw nag nañ ko dajale jox ko kenn mu indi ko waaye yoon woowee ñu mujjoon doon yóbbu addiyee junni joojee ñoom ñett ñoo ñëpp ñoo mujjoon ànd ci dëkk boobu di gànnaar keroog bañ fa eggee sax xaadim rasool berndeel na leen ci reer reer këll bañ ko defoon ñu cay reer mi ngi ci njabootu cheikh ibrahima Ibrahima Sarr Njaañ ku fa dem ñu wan la këll ba mooy seedeb Cheikh Ibrahima Fall Lamp Serigne Ibrahima Sarr Njaañ ak kii di Cheikh Ahmadou Mbàkke ne dem nañ gànnaar te ñoo ànd ca yoon wa kii di Cheikh Ibrahima Fall wéy nekk Sénégal di xaar xaadim rasool xaadim rasool wéy des gànnaar googu ba atum 1907 ci 1907 nag la jóge gànnaar ñëwaat ci beneen résidence surveillée ci dëkk bi ñuy wax ca yéen jolof ca yéen jolof googu kooku di maam Cheikh Ibrahima Fall daana fa dem ay yooni mbàkke xaadimu rasool ba ci atum 1912 mu ñëw ci dëkk bu sell bii di njaareem njaareem googu sax kii di maam si ibrahima fall daana fi seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko fi ziyaare si mu gi nag la dëkk moom ci njaareem googu sanc fa ab quartier bu tudd kër cheikh ibra foofu sax la génnee àdduna ci atum 1930 ñu indi ko ci dëkk bu sell bii di tuubaa ci wetu kim doon liggéeyal di xaadimu rasool si ibrahima fall ginnaaw bi jóge na cees nag ñëw dëkk ci wetu seexul xaddiim sanc fa bu ñuy wax kër seex ci njaareem mu dend ak kër gu mag bu ko seexul xaddiim soxla woolu ko heure bu ko namee si ko mu nekk nag lu ñu tudde ab baay faalam nangul ko nag daanaka lu ko kenn nangulul ci yoon ba tax Cheikh Ibrahima Fall ràññeeku ci yoon wi njaareem googu sax kii di maam Cheikh Ibrahima Fall sosaat na fa yeneeni gox ci dëkk bu sell boobu di njaareem muy quartier bu ñu tudde Merina ci njaareem ak quartier bu ñuy wax Kara Lol Lol mi ngi ci njaareem kii di Cheikh Ibrahima Fall nag sanc na yeneen i dëkk ñu ràññee ci dëkk bu ñuy wax Gébbu Faal Tuubaa Faal dëkk bu ñuy wax Daaru Bayre nekk ci wetu Cees amoon na itam lii ñu tudde ay daara ci dëkk bu tudd Ngomgo amoon na itam ay daara ci dëkk bu tudd Guy Ngéen ak dëkk bii di kër Ibra Yaasin muy def nag di yar jàngale di tarbiya ak di liggéey di yit ki ko defal lépp di Seexul Xaddiim fii di Mbàkke Bawal itam te lu ëpp ci njabootam nekk fi di quartier bi ñu tuddee Paaleen itam Cheikh Ibrahima Faal lamp ko waaye moo jox ndigal sëriñ Moustapha Fall mu ñëw nekk fi taalibeem wala ab seexam bu ñuy wax sëriñ moo du Mbooj mooy ki fi nekkoon wala mooy ki ko sanc ci cosaan ginnaaw bi nag la jox doomam ji kii di sëriñ Moustapha Fall mu ñëw dëkk ak kii di sëriñ Moodu Mbooj faaleen gi nga xam ne nii moom moo nekk itam ci dëkk bu sell boobu di Touba kii di maam Cheikh Ibrahima Fall musta nangoo dëkk lii di Touba ndax kat dafa jortoon ne ku dëkk ko yaakaar bu yàggee nga miin ko te miin kat bu ci duggee nag bu yàggee nga yàpp ko bëgg mu sori ko moo tax itam doon na sàkku ci njabootam ñu dëkk lii di mbàkke bawal def nag lii di mbàkke bawal ak cumbukaay heure bu leen njabootug seexul xaddiim soxla ñu mën a dem léegi egg ci ñoom waaye nag taalibeem bu ñuy wax sëriñ ababakar ndaw di waajuru baay cheikh ndaw baay faal moom la kii di mu cheikh mamadul mustapha mbàkke joxoon suuf ci tuubaa ñu di ko wax guy ndaween ginnaaw bam demee ci maam cheikh ibrahima di ko wax ne taawub seexul xaddiim ba jox na ma lii di suuf ca tuuba seexul xaddiim munuma ci dara ginnaaw bu fi kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke jógee nag ba kii di dul mamadul faadal mbàkke toog lii di xalifa la jox doomu maam cheikh ibrahima faal bii nag lii di suuf su takku ci tuubaa ñu koy wax sëriñ Alioune Fall Mbawoor sëriñ Alioune Fall Mbawoor moomu nag daanaka Baye faal bu am suuf ci dëkk bu sell bii di tuubaa rawatina ci quartier boobu di Paaleen moo la ko jox ndax Cheikh lu moo ko ko jox kon Paaleenu Touba itam ci koy yël ba noppi koo gis nag ci le 19 juillet 1927 ñu jële seexul xaddim njaareem indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba ginnaaw bi nag la Cheikh Ibrahima Fall jël léppam jox ko kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke di ko liggéeyal di ko tarbiya di ko xoole nag nam doon xoole waajuram di xaadimu rasul keroog bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di gaslu lii di raay bi Cheikh Ibrahima Fall ma nga ca woon ndax kat jortoon na ne xaadim rasul mooy liggéeylu mbooloo mu takku itam liggéey bi kon ñetti at ginnaaw bi bu seexul xaddim làqoo nag la maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul na foofu ci njaareem di kër cheikh la làqoo ñu jëlee ko fa nag indi ko Touba Cheikh Ibrahima Fall ku amoon relation la ak mag ñi toppoon Serigne Touba seexul xaddim koo ci tudd rek sopp pep seex ibrahima faal la woon doomu sëriñ tuubaa seexul xaddim itim koo ci mën ji tudd rek soppeb maam seex ibrahima faal la woon rawatina ñaareelu xalifab xaadim rasuul bii di cheikh mamadul faadal mbàkke ndax keroog bi jumaa ji eggee ci atum 1963 bañ inauguré ko ci la 7 juin boobu kii di cheikh mamadul faadal mbàkke ab junni la teg wax ni képp koo xam ne nii xam nga soroor bi kuñ ko tuddee wala nu mu tudd ma jox la ko boole koog nag di reeree ju waaye kenn xalaatul woon ne bàyyi Ibrahima Fall la Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di wax ba ñépp daj kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke jëlaat ab junneem def ci poosam di leen wax ne bàyyi Ibrahima Fall laa ko tuddee bis boobu sax ba nëga ni ñi ngi koy màggal ndax njabootu sëriñ Aline Fall Mbawoor ñi ngi def ajjuma ju jot ñu togg lii di ay añ ngir di ngénte waat tur wiñ seen maam ja di kii di Cheikh Ibrahima Fall Lamp kon looloo waral ajjuma ju jot waa kër sëriñ Cheikh Mbawoor togg lii di ay añ ginnaaw maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina bu mu nekkee liggéeykatub xaadim rasul bu ràññee ko lii di bind itim def na ko ndax bind na genn xasida guñ tudde jës bul murit kon liggéeykat la woon waaye lii di bindkat itim la woon am na ay tur yu bari yuñ koy wooye moom maam Cheikh Ibrahima Fall kon ràññee nañ ci ay turam yab sax xaañ ci Fall bi mu indi woon ci sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ak tur wi di Ibrahima wi ko seexul xaddiim tudde ak tur wi di lamp bi ko Cheikh Ibrahima Fall am na lu ñu tudde ay cheikh ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ cheikh Abdoulaye Sey sëriñ Yamar Mbay sëriñ Maxtaar Mbooc sëriñ Abdoulaye Yaqin Diop sëriñ Moor Ja Njare sëriñ Maxtaar Ñang sëriñ Baay Cheikh Ndaw sëriñ Moodu Géy Njaay sëriñ Abdoulaye Xaar Diop sëriñ Moodu Géy Warak ak ñeneen ak ñeneen ñu mu seexal moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi génn àdduna bisub talaata juróomi fan ci weer wii di weeru 49 ci gàddaay gi talaata juróomi fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1349 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 3 juin 1930 mardi 3 juin 1930 ci bi 9h jotee ginnaaw bu ñu jullee jee ba noppi ñu jële ko fa indi ko ci dëkk bu seel bi di Touba kii di sëriñ Ndaam Abdourahman Lo mooy ki ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeel yu mag yi ci teewaayu mbooleem njabootu xaadim rasool bi ndax Baay Faal ba dem na Cheikh Ibra ay xalifaam nag nii la tëdd ci atu 1930 ba atu 1950 sëriñ Moodu Moustapha Fall mooy ki ko wuutu ñaareelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall 1950 la ba 1953 sëriñ Mor Talla Fall mooy ki ko wuutu ñetteelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ci atu 1953 la ba atu 1975 sëriñ Abdoulaye Fall Ndar mooy ki ko wuutu ñeenteelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ci 1915 ba atum 1980 Chérif Assane Fall mooy ki ko wuutu juróomeelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall 1980 la ba 1984 Serigne Abdou Sakkoor Fall mooy ki ko wuutu lii di doomu maam Cheikh Ibrahima Fall yi nag yu góor yi jeex takk ci kaw suuf sët yi nag tàmbalee wuutu seen maam ji sët bi njëkk wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall mooy Serigne Moodu Aminata Fall doomu Serigne Moustapha Fall mi njëkk wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall la ba atum atum 2005 ñaareelu sët bi wuutu kii di maamam mooy sëriñ cheikh jëmmu faal doomu sëriñ mustapha faal la mi njëkk a wuutu maam cheikh ibrahima faal yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér 2005 ba nëg ni moom la ñuy xoole kii di maam cheikh ibrahima faal ñu koy ñaanal mu yàgg ci mbooleem njabootu maam cheikh ibrahima faal gépp ti suñ boroom aar ko sàmm ko ndax lii di bàyyi faalu gi kat sagub murid la kii di maam cheikh ibrahima faal am na ay bis nag yuñ koy fàttaliku ndax fukki fan ak gàmm ci atum 1891 la jot lii di ngërëmam ci sëriñ Touba Seexul Xaddim ci dëkk bu sell bii di Touba am na nag ay taali taalibeem yu ko ko doon fàttaliku ci dëkk bële di Tiwaawoon di def fukki fan ak juróom-ñaar yu ne ci weeru gàmm ñuy fàttaliku bis bi Cheikh Ibrahima Fall jote lii di ngërëm bis boobu sax mu nu ñu ko jëlee Tiwaawoon indi ko fii ci jannatul maxwa ci fi ñu tuddee Baay Faal ga mooy fi ñu jox njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ga sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall bii ñuy wax sëriñ Basiiru Fall mooy ki koy màggal màggal gu ñuy màggale ci dëkk bële di Kaolack di ñaar fukki fan ci weeru koor di bis bi nga xam ne nii ci la ko seexul nangu leen lii di ak taalibeem bis boobu itam am na sëtam bu ñuy wax sëriñ Cheikh Khady Guèye moo ko doon màggal ci Kaolack njabootuk sëriñ Cheikh Khady Guèye ba nëgë ni ñi ngi koy màggal muy ñaar fukki fan ci weeru koor am na beneen bisit bu ñuy màggal waaye bis boobu sax daanaka wàccam lii di kaamil rek moo ci am mu ñeenti fan ci weeru koor mooy bis bi Cheikh cheikh jëmbu faal mi ngi koy màggal ci Touba paaleen am na itam baneen bis bu sëtam bii di sëriñ cheikh ndigal faal di màggal muy bis bi cheikh ibrahima faal génnee lii di àdduna muy ñetti fan ci weer wii di tam xarit taalibépp seexul xaddiim ba ka cheikh dul faadal duppee soroor bu mag bi joxe katub ndogu ba yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi jeeyi xaadim rasool moom doon liggéeyal te yàggal fi ak njabootam ak ay soppeem ak képp